jaajëfal nañ leen bu baax a baax suñu mbokk internet yu 5M TV Sénégal bëgg loolu rek ci ànd bi ngeen di ànd ak ñun saa su nekk di fi teewloo xibaar ñu àddu sax ci mbiru xibaar yi lee ak kile di Oumath Diagne moom Oumath Diagne rek ñu doon xam le ni nag def dañ ko woowoon rek foofee ca dikk ginnaaw gi sax nag mu ni moom du wuy ji ndax ki nga xam ne rek moo waral nag bile convocation mooy jëriñ bi ñu dénk wàllu bi réew mi lee di Antoine Félix ginnaaw lu nu ba tax na moom sax mi ngi dalal nag xelu nit ñi rawatina nag ñi nga xam ne ñoo topp ci ginnaawam mu ni moom sax lii la tàmm rek lii rek la daal di tànn bañ a dem rek wuy ji waaye nag lépp loo xam ne rek am na ci moomee du ci daw benn yoon ndax mooy nangu mi ngi nangu ni rek moom moo ko daal di def nag fi mu nekk nii wàllu dictature bi ak li nga xam ne rek jaarul yoon te ñu ko bëgg teg ci kawam nag du ko nangu benn yoon moo waral nag ma ngay jaajëfal rek di wax ni gis na nag ñaan yi ak njàppandal njeexital yi nga xam ne rek askanu Sénégal ñu ngi koy daal di def ci moom ñu àddu itam wax leneen ci xibaar yi les collectif des avocats bu président Ousmane Sonko maanaam nag avocat Ousmane Sonko yi ñoomee nee nañ dañuy amal sax ndajeem taskati xibaar ci alxames bile juróom benn fan ci weeru avril atum 2023 ci bu ñetti waxtu ci ngoon jotee file ci résidence Mamoun nekkee file ci VDN fii ci Ndakaaru sax lay daal di amee ba na sax ña woon ak taskatu xibaar yi nekk itam ñu fi toogal bitim réew ngir ñu fekkee nag bi leen ndaje.